technologie mm-hmm. man mii di wax ak yow aw ma Instagram aw ma aw ma Snapchat aw ma réseaux sociaux yi nekk ma benn. Mm-hmm. nappalu nga de. WhatsApp rek laa yor. Mm-hmm. te maa ngi liggéey si domaine bi nga xam ne domaine bu sensible man xam naa en fait nouvelle technologie bu baax a baax a baax a baax. mais man maa gënoon j'étais mieux placé pour utiliser ko mais du ma ko utiliser parce que xam naa lu si ginnaaw. ñu ay ay ay ay foo xam ne kenn xamul ko koy gérer. loolu benn parti la mais li nga ñëw si parti côté nga ne imaam maa ngi dégg ñaan imaam yi nañu waaraate imaam yi dañoo waaraate ba sonn mais nit ñi si boppam la seen bopp bu nopp yi ku waar instant Sénégal pour man ku waar ku waaruwul instant hmm? hmm, hmm. donc que nit ñi si boppam damaa xamul léegi ñun ñu nekk axru zaman mooy waaj a ñëw wala qu'est-ce qui se mais dañoo am problème loolu moom te soo xoolee nga xool ci côté côté nguur gi ku am problème si affaire problème vidéo yi kenn mënu ko régler parce que day jël temps. Mm-hmm. donc problème fépp problème yi fépp la nekk. Mm-hmm. donc loolu laa amul lu ma maa ngi leen di baax Ndiaga li nga wax nag dëgg la ñun ñoom nañu xaar suñu vidéo. nañu xaar suñu vidéo foofu kañ lay génn yàlla yàlla dolli sutura. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mantu yàlla na yàlla dolli sutura. amiin amiin mantu euh, gis nga li xale yi def nii ci seen biir lañ ko njëkkee. Mm-hmm. bu dee xale yee ko def moom mu jàpp ni xale yee ko def man ku dugg sa biir néeg sañ ngaa summeeku ku nekk sa jëkkër sañ ngaa summeeku waaye lu waral vidéo bi ñu filmer ko ba partager ko foofu foofu la caay-caay tàmbalee mantu demal ci këru këru location yi nga xam ne dañuy bëri ñu fa daje da ngay parfois nit di sangu sax ay xale dem di la di la di la yër ki lay yëddu bu bu mënee am bu pré mënee am sa film dina ko am dina ko am yaa ngi dégg sànq maa ngi wax lu reelu ma ni ma ni lal yi ñooy yoole ñooy yoole ñooy yoole ñooy yoole ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir buñ si manee dolli ay pont dina baax xam nga lu tax dafa am ñoo xam ne seen yoon nekk maanaam lu seen yoon nekkul lañuy la ñuy déglu waaw li seen yoon nekkul la ñuy toppatoo dañ kumpa est-ce que yaa ngi dégg parfois dañuy toog di seetaan télé rek dégg lal ba naan kiic kiic kiic moo leen kiic kiic ba moo leen di jox réaction bu ñu jug pour commencer yëddoo dégloo yu kenn xamul après loo cay am déet kaay ma yëgal li gën a garaaw. xam nga xale bi xamul dara. bu eh. déggee lal buy kii ci du xam lu xew déedéet ma nga koy xam. <laughs> yow eh. mag ma boo demee yëndu après. xoolal hmm. bëri na koo xam ni bëri na koo xam ni. wallahi bu mënoon a dina filmer ay kilifa. dangay gis xale bu xale bu jigéen yor satala dem ci toilette ji génn am maam siiri ni ko aka neexoon ma doon satala. Mhm. dégg nga ma ni ko aka neexoon. ma doon satala bi. ma ngay cokkaas. moo ngay cokkaas waaw. kooku maanaam bu doonu satala bu doonoon caméra moo koy gënal. dëgg la. <laughs> nañu waxante dëgg. dëgg la. c'est problème moom mooy problème moom mooy saa à dire que éducation de base bi moo raté. Mm-hmm. ñaar nag mooy yombatul. ndax boo doonee jàmbaar sa biir kër te bàyyi sa doom tamit muy génn ci mbedd mi la lavage de cerveau la mbedd mi di def ca la nga jot a def yow. te temps bi doom ji di am ci mbedd mi amu ko léegi ci biir kër gi. déedéet. lu tuuti temps bi ngay am ak toog sa doom tamit bëriwul. léegi li ngay jot a def ci xelam. te temps bi muy am ci mbedd mi ëpp ko ña muy tasanteeg ci mbedd mi la nga jot a def dañ koy raxas ba mu set wicc def ci ñoom la leen bëgg ba pare jox ko matériel bi. Mm. imaginer léegi dangay dem ci bureau kilifa yi kilifa yu bari muy kilifa diini kilifa aada yi administration bi boo demee li ngay njëkk def mooy secrétaire bi day jël portable mm-hmm. porte amul benn portable léegi. buy buy duggee ak ak ci biir ci biir ci biir ci biir bureau. am na kër yoo xam ne sax kër kilifa yi ak loo miin ah. hmm. wallaahi ak loo miin waa ji maanaam dina def benn euh, euh, euh, complicité ak secrétaire bi. Hmm. secrétaire bi na ah baal ma de xam naa ni sa xarit la waaye bàyyi fi portable yi. Hmm. maanaam moom si moom yow mi nga xam ne mooy sa xarit wóoluwu yow ak sa portable. am na ay kilifa diine yoo xam ne tey boo buñ la doon recevoir. ci yéen ñaar rek da ngay gis bëkk néeg bi ñëw di jël jël jël portable bi waaw léegi bu ñu allo allo oui allo salaamaaleykum waaleykum salaam na ngeen def ñu ngi sant sëñ bi ñu ngi lay ziar ñu ngi tali ziar bu wér wér leen bi de ah ñu bu baax a baax a baax waaye c'est te te maa ngi leen di ziar bu baax a baax njaga maa ngi leen di bu a ñoo ngi lay fay bu baax ñoo ngi lay fay bu baax a baax a baax ah, maa ngi wootee Gambia ah Sirkama ana waa Gambie ñëpp a ngi si alhamdulilah. bisimilah uh, waaw ma ne kii uh, tamit man nag uh, ndaw si nu ma déggee seen wax bi parce que man yaakaar naa ñoom ñaar kenn ci ñoom daal ñoom ñoo widoo seen bopp parce que nag loolu dafa yombul parce que nag wax bu feebaree nopp yu koy war a déglu fa war a wér parce que dañoo ànd ci farata ah. hmm. non dëgg bu kenn may sa morom daray caaxaan ci biir farata boobu noonu du góor gi du jigéen ji parce que nag téléphone moom dafa garaaw garaaw boo xamante ni. ñun ñun africain yi lañ ko def a xam. loolu mooy loolu mooy loolu problème bi waaye man li ma jàpp mooy benn góor gi moo film góor gi moo ko film wala jigéen gi ci boppam film ko ngir garder ko téléphone am rot mu demee beneen façon ba siw siiw ci ci ci ci ci réseaux yi parce que nag euh, maanaam film daa yombul film ñoo xamante ni dëgg-dëgg ñooñu bàyyi bàyyiwuñu xel bokk ñu kenn film leen. mais loolu dafa yombul surtout ñaar ñuy sëy ak sëy ak si nu mu sacré ak sëy nu mu soxlaa sutura. jërëjëf ah? mhm. mais dëgg-dëgg ku ci dugg war a jaamu yàlla sëñ bi da war a da war a da nga war a da nga war a tëj palanteer bunt bi rab comme ni ko Mantoulaye waxee tàngoor tàngooru tàngooru dix minutes boo xamante ni barke ak tiyaaba ngay sàkku mhm. loolu jar na lu ne même sa bunt soo ko ubbee sax. kenn xalaat yow mënoo mënoo mënoo gàtt xel gàtt xel gu toll nit ñëw dugg ba sa biir néeg di leen film ngeen di sëy te gisuloo ko loolu mënul nekk. Hmm. loolu mënul nekk xel mënu ko nangu. nañ bàyyi téléphone yi ñuy foyee bu ñuy sëy parce tey tey tey bi léegi gars yi ay ci duggee daanaka. da ngay seeg sa jabar sa yor sa téléphone di ko filmé. dañu ko jàppee challenge de. man nag loolu jaaxal na ma man ah, nag loolu mënul nekk njëkk wala yéen asim loolu mënul nekk. mais nit ñi ah, loolu mënul nekk. am naa ci xaw téléphone bi ci hmm. moo ko yoroon. caméra bi ci ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar suñu waxee seen akulaay tala. Hmm. vidéo bi foofu la jógee ci kenn ci ñoom ñaar. Hmm. non des fois des nga jël dara ne ah lii moom ay def sang bi. jërëjëf 88 628 89 90 bés. mantu man xale yi dañu koy def challenge. man man xam naa lamb garaaw la bëree ba pare seetaanaat sa lamb ndax erreur yi nga def football ba pare seetaanaat football bi ndax mm, mm, euh, euh, bit bi ni mu duggee. Euh, nga boxu seetaanaat box bi xool say erreur nga nga nga nga nga. c'est vrai que lamb bu ah. jeexee après vidéo yi ngay xamee erreur yi. waaw ci ngay xam erreur football bi après da ngay tegaat. c'est ça xool say erreur. bëgg naa laa tontu. mais duma ko def. di sëy di sëy di filmer sa bopp ba pare seetaan ko maanaam seetaan bi ngay seetaanal sa bopp. yan erreur maanaam yan. yooyu mënul am erreur parce que nit ko nu mu mel rek la ko noonu la mel. lu muy def rek bu sax jéem waaw du ma la tontu. parce que suñu la dee tontu ma comprendre waaye dafa am solo mooy di sëy te dafa am dafa am ñoom dañuy sëy. non di filmer seen bopp. est-ce que comprendre bu mhm. dee wala une troisième personne ne fa di leen filmer di leen ah, filmer waaw foofu ñaara fa ne est-ce que xam nga dañuy def loolu yenn saa yi di nga sentir que nit moo taxaw di leen filmer ngeen baal ñu dañuy jàngale yow miy sëy ngar portable naan da ngay filmer sa bopp am na foo xam ne boo fa yeggee moom portable bi dootoo ko téye kon àndul àndul sëy ak filmer sa bopp àndul lan la ñuy def mooy jël portable bi cadré ko ci lal bi waaw di sëy mais boo ci paree yow seetaanaat ko ban ban ban ban ban luy xew après. xam lu ñuy doyee vidéo bi ak lu ñuy doyee vidéo xam nga lu neex ci sëy di filmer sa bopp lu ci neex. pervers yi dañu bari léegi. dañu bari. dangay gis ku jël xale. nit ni da ngay dem violer ji xale ba di ko filmer xanaa loolu mooy mooy utal sa bopp de yi ñuy def dafa mel ni àndatuñu ak seen sago wala nga xam ni ñiy filmer loolu daf leen jafe pour après loolu la ñuy jël di ko jëlaat di ko def neex-neex ci film boobu moom la ñuy jëlaat di ko bànneexoo. waaye nag euh, gis nga mantulaay ndaw si ki ko bu dee dañ koo filmé ki ko filmé muy mag muy xale jarul mu ci kersawu ndax lu am la ba pare daf koy yar jarul mu ciy kersawu di toxu ak di daw mel ni ku sàcc ci baa mu def nak sa dul noonu nga xamante ni bu guddi jotee ku xëcc sa buntu tëj te ngay sëy xel xel yàlla na xel dee ñi ko filmé bu leen leeree ni leen filmé nañu yaay jàmbur waaye seen yaay a nga ca leneen ñoom it kon mooy loolu tooñ du gàllaaj kon na dëggal boppam mu toog fi mu toog am suturaam ànd ak boppam ànd ak yàlla ay doomam comprendre que ni situation moo ñëw ndax am na mag ñoo xam ne nag ñooy filmer seen bopp muy génn mag ay magum jëmm mhm. ñooy filmer seen bopp muy génn am na faal waxal ko nekk ni nga gonee faal ku ne nga gone woo ngay màggawaale. Fall waxal am na am na xam dañuy tëdd filmer seen bopp def seen ay yëf. yu kenn xamul di ko yónnee di ko yónnee mu rëcc. ci ma di koy mantu laay nañ def di manière mantu nañ def attention. ci téléphone asalaamaaleykum. am na benn foo xam ne su ma la fay bondoon nga xool video yi ay maga nga fay. Hmm? waaw wow. mantu am na nañ def attention téléphone ñun ñi nga xamante ne ay mag lañu suñuy bët baaxul. mën nga yónnee nit dara juum yónnee ko ci beneen tur nañu waxante dëgg tey nga mag dafa am fu mu war a yam mais nekk ci téléphone bëgg ko di manipuler di manipuler te lu nekk ngi ci sa biir téléphone nga ñeme partagé ñeme nettali yàkkamti groupe groupe whatsapp yi weer am na ñoo xam dañuy ñeme yàkkamti salaamaaleykum groupe whatsapp yi weer nañu baari mhm, dëgg la parce que am na ñoo xam dañoo defoon dañuy sellal nekk ci ruq bi di sellal dëgg la mais dañuy partage vidéo yi nag tànni nañ ko ci groupe ba te yëguñu ah, ah, ko ak audio yi ak audio yi am na leneen lu am am na leneen lu am jaga kon yooyu ñuy def ay reetaan nag ay yu kenn ah, xamul mais daf cee am yoo xamante ne dafa bon waaw te nag loo ci loo ci seevul du ñëw ci sa téléphone xam nga loo seevul du ñëw waaye da ngay gis ñoo xamante ne dañ koy dugal ci ay groupe naan yu ma ko xaw ma lii fu mu jógee di dof dof mais yaa ko seev day rëbb mu dugg sa téléphone yooyu yëpp dafay am imaginer nga bokk sa ay doom groupe say mbokk sa yu kenn xamul ngay jël yoo xamante ni doon ko yónnee keneen juum dugal ko ci groupe bi mag day xam boppam xale sax dafa war a am sutura xam boppam am na loo xamante ni yokkul ci sa dund dara daf la koy eh, yàqal te ku la xool daf la yëpp te bët boobu rek la la nit ñi di xoole nag ndax ndax lii xew ci biir néeg dafa nekk sutura ba mënuñu koo assimiler duñ ko def ci digg ëtt àdduna du yàgg nag ba ñu def ko ci digg ëtt wala ci mbedd mi wala ci kaw tali bi yaa nga ca balcon ba ca kaw ñun du ñuy waaw da ngay yaakaar ni kenn gisul jaga boo nekkee ci sa balcon fay sa lampe da ngay yaakaar ni kenn gisul waaye am na ñoo xamante ni bu guddi jotee ña nga ca seen terrasse lu bon rek la ñuy wër waaw lu bon rek la ñuy wër yenn saa yi oto romb lumière bi tàppe ñu xam ñu gis lu ñu warul woon a gis yooyu moo fi am nañu bàyyi nettali yenn saa yi nga nekk da ngay da ngay day lëndëm ci yow fekk moo nga leer ci keneen yal na yàlla dooli sutura yal na yàlla sutura moo jar a ñaan mantu yal na yàlla dolli sutura gi. Sénégal tool na foo xam ne ko amul sutura yàlla yal na yàlla dolli sutura gi. kenn ku nekk ci sa jëmm gi am nga loo xam ne bëggoo mu siiw. dëgg la wallaahi. ku ne am nga ci loo denc loo ku nekk ak ku mu mën mm. na ci jëmmam loo xam ni bëggul ku ko di ku ko yëg mu xeeb ko. du ko partagé kenn mën naa am wax la mën na am jëf la. dëgg la. ak ku mu mën a doon. Mm. mënti doon. am nga bis boo xam ni. bu dul sa ndaw di sa mag. dëgg la mhm. loo xam ne dencal nga ko sa bopp loo xam ne bëggoo kenn ku ko yëg. ku weeraata ñu weer. non xoolal xoolal ñi xoolal adduna bi xoolal. day yàgg rek mhm. képp ku daan weeree. ku fi weer ku mës a di weeree. da ngay weeru ñëw na ñu kaala. Mm. yàgg da yaa ngi dégg ba. wallaahi ñun ñii di liggéey ci wàllu mœurs affaire fait divers yenn saa yi ñu jot vidéo boo xam ni suñu maanaam suñu suñu suñu jëmm mayul. ñu jàllale ko. déedéet. mais da ngay jékki saa gis vidéo bi yi di ko partagé. di ko fooye. moo tax souvent bu ñu wax ni euh, euh, gars yi liggéey ci média bi dañoo bari wax ma ne ah bu ñu maanaam li ñu xam nakk gi la ñuy wax. <laughs> dañuy denc ak dañuy génne yenn saa yi ma dégg benn benn benn histoire ñëw ni mantu waa nangam mantu wax ma ci xalaatam yenn saa yi ma mantu. Mhm. ñu jàngat ko ñu ñaar ñu jàngat ko te du génn ci télé du jàll ci mm. rajo. Mm. du génn ci télé du jàll ci rajo. mantu gis nga nit ku nekk bu dee am nga looy nëbbal sa bopp na nga jàpp ni kon li faal njaga def naa ko nëbbal ndax man li ma def mm-hmm. surtout loo xam ne sa yoon nekku ci mm-hmm. mantul gis nga bi kaa xewee kaa nañ ko waxtaane kaa mm. nañ topp kaa maanaam dama doon kaa diw da doon kaa ak kaa bi fu mu toll kaa bi fu mu toll kaa ñu kaa la nit ñi léegi jug xarit ak xarit ñoo ko fi indi ñoo ko fi andi waaw mm-hmm. léegi nag la nit ñi jug nag léegi di wuti kaar dañ koy wëri. bu njëkk kaa dana daan fekk si mais léegi gars yi ñooy jug di wë di di di wëri di wëri di wëri kaa. te dañuy wëri kaar ba pare naan la suite bi dinaa la ko indil loo wër gis ko. te yàlla boo ciblé nit nag. Mhm. commencé ko topp démbam topp ko fa mu fa mu fa mu fa mu njëkkoon a dëkk topp ko ba tey ka mu tasanteel ka mu ka mu bàyyanteel falaa budda nga am ci lenn loo xam ni. da nga koy soow mu weex boo koy xool ba mu yàgg di nga ci gis. moo tax faal jamono bu soppeekoo dañuy soppeeku ànd ak ñun. Mhm. gàttal tànk yi. gàttal làmmiñ yi boole kooku réglé. surtout. am na ñoo xam ne Fall kenn amul lu ñu wax si ñoom. boo waxee lu ñu ñu ngi koy def si sutura. boo ko waxee si téléphone ba pare. am na ñoo xam ne coupé ba wóor ni coupé na. lu ñu mënti def it ñu waaye man. Mhm. dañu suturaat suñu bopp. xam suñu jëmm yi. nit ñi kenn mënu leen a teree wax. gis nga boo boo liggéeyee waat tëju sa biir néeg demoo dikkoo kenn dajewul ak yow fenn. waaye yaay waaye nañ la waxal waaye ren ba déwén sos la. loolu ren ba déwén duñ ko gis moom garaaw ren ba déwén laa la wax dama ni ren ba déwén du feeñ nañu gàttal lépp loo xam ne mhm. buñ la ca fekkee xeeb nu wala loo xam ne bu buñ la fekkee ñu am kersa suba dañ koy eggale nañ ko eggale nañ ko eggale incha allah d'accord